ces événements indi woon na nga xamné yoy yooyu les contrats euh, information yi ci amone à l'époque dafa atterrir woon foofule euh, si euh, palais de la république le PM Sonko ñu ngi xam le ne mu ngi traquer les 45 milliards Moustapha. wa 45 milliards warul naaxee non say parce que xam nga lan moo ñu ci génne. Mhm. consortium bu journal d'investigation bi nga xamante ki seen représentant représentant France 24 bi nekkoon Dakar fi mo tok Mhm. di lire contrat bi ci télé c'est vrai te loolu bu ko deful amaana contrat yi dinañ dem ba kenn du ko a wala kenn du xam. Mhm. il a fallu que mu toog te li ci gënoon reetaanlu sax mooy yenn fusil yenn bagage wax usine dañ dañ nañ koo defar ay ati ati des... Mhm. ñun non seulement gisuñu ngànnaay yi. petit boubé bi ne lañ jox euh, contrat bi moom lañ moom moo gagné contrat bi di un nigérien. petit boubé petit boubé. nga xam ne dañ koo fiché fépp. dañ koo fiché ça pose problème déjà ñu ne armement bi ñenn ñi ne armement bi ñu ko jëndee ministère de l' environnement moo ko jëndee ñu ne war na ko jënd parce que agent yi lañ koy jox euh, eaux et forêt yaag ñi nga xam ne ñooy garde côte yeeg ak yu ni mel ak yooyu mm. boo jàngee yéenekaay yu bëri dañ naa naan agent yi nee nañ gisuñu ngànnaay mm. tey lañ gën a tumburanke ci wàllu ngànnaay léegi ñu posé benn interrogation ñu ne ngànnaay fan lañ nekk mm. su fekkente ne am na su amul marché bi naka la demee ak petit boobu mi lan moo tàbbal marché bi ci ay loxoom tamit est-ce que noonu la waroon naa demee. Mm-hmm. léegi loolu mérité wu ñu leeral ko. Mm, président Macky Sall daal di dajaloon ba mu jekk ubbiwu ci dara daal di bàyyi noonu mu dem. léegi boo amee autorité dañ koy ñëw leeral. Mm. te man je me dis warul yem foofu war nañ dem fu gën a sori. Mm. servir Sénégal njàpp. luñ ci wax. ah boobu de dañ koo dissoudre ñoom avant <laughs> <laughs> yow nga ñëw sa jabar di gérer ay milliards. nga dem ba war a ñëw nga taal kër gi dem sa

fan lañ ko fu xaalis bi doon jóge ñan ñoo nekkoon bayeeru service Sénégal. Mm. lan ak lan loolu sénégalais dañ ko war a xam du question dara nag parce que bu fekkee nit ki dafi nekk. Mm. ñu gis ne am na ay milliards yoo xam mi ngi c'est vrai yóbbu nañuy Maroc yi dem nañ fa ji France. ñu mm. jëndal leen ay xar bu tabaski jotee am na ñu bëri ñoo xamante ah, day yónnee kii hôpitaux yi jëndal leen wax dëgg yàlla loolu lépp na. waaye nag contribuable sénégalais bi la. xaalis boobu ñaata la fu mu jóge fan la dugg. lan ak lan ak lan loolu lépp il faut ñu xam ko. waaye sa borom kër bàyyi bay dem léegi loolu ndax dafa ko ñeneen ñi parce que jabaram moo géroon servir Sénégal mm. am na fi yeneen fond euh, pas fondation autant pour moi mais yeneen mbir yoo xamante ni mën na koo di surtout doo ko def. xanaa xamoo loolu moo tax euh, Moustapha pour te rejoindre si li ngay wax nii ñenn si APR yi bu ñuy génn am euh, façon bu ñuy waxee. le président Macky Sall il faut les comprendre hein. da ngay xam ne le je vais pas dire le gars l' ancien président du Sénégal Macky Sall il a protégé ñi nga xam ne moo nekk. sa sa famille moom saraxaleen même sax cette affaire Doro Gueye mm-hmm. gis naa ñuy génne carrément que Macky Sall dafa protéger ki nga ne moo nekk parce que lu def yëpp moo mhm. y en a d'autres aussi mais hein. loolu wax moo ko doon defloo. son bras armé. voilà parce que boo déggee après nit ñi expliquer mais amoon na fi ay temps kan moo fi xam ñëpp fi xamoon ne mm. ñëpp fi xamoon léegi tey jii bu président feu vert. moom sax wax na de terrain nga ne ci aéroport bu ne président feu vert. Mm. di dindi di def lu ko neex mm. léegi président dem na yoonam fi am na ñoo ne pro moo nyeni nyamai ñi amay frustré mm. parce que dañ jàpp ne waaj def leen naa sacrifié dafa dem ba war dem jël ay décret mag jël ay mbiram def yi nga xam war na def yëpp jël avion dem bàyyi leen fi boo xoolee aussi Moustapha dale naa sacrifié aussi effectivement effectivement mais mais même seen diggante ak Pastef xeex bi Macky Sall moo nekkoon ci kanam <laughs> moo nekkoon ci kanam ah, ba mu demee ba ne les carottes sont cuites mu daal di génnee amnistie amnistie mën ak mais yaa xam posé une question président sa njaboot gi si ginnaaw noo def <laughs> mais xam nañ boobu fi ñu ak li mu def loolu lépp ak li def lépp le tey lu ne def na fi <laughs> le soleil bu dëkk bi di lakk le soleil dem waq nguuna ne un un un village nangam ak immersion <laughs> Sénégal day defee émeute le lendemain xam def immersion dem mais c'est vrai waaw ku nekk wàll bi nga féetee def nga la nga doon def ñenn ñi nag ci côté boo xalaatul mm. dem nañ sax TikTok bi ay boy yo xam ne mosoo leen ñu len di recevoir. di génné xaalisu askan diko passer passeré mm. ñi ngay jox xale bo xam ne musul té 300 mille ci àddinaam nga jox ko 1 million. Mm. né ko del saga wala del del def ni del def ni sa bo xey tey ji amna fi ko xamante ne influenceur du ma tudd très célèbre. Mm. gaay ñi lañ ko doon def xaalis diko ko diko union na na xaalis pourquoi parce que benn vidéo de quelques minutes bo xam bi def bu ko xey saga ci Ousmane Sonko wala ñeneen. Oh. sa bu xey am lu mu def xaalis bi di taw. sérieux ah mais sérieux saa bu xëyee saa bu xëyee ne nekk ci. en plus dañoo il n'est pas le seul il n'est pas le seul ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen noonu lañ doon def. yaa ngi gis mm. Bah Diakhaté bi ñu ko jàppee ñu naan compte Wave am ndegam baa mu mën a am loolu waxuma ñeneen ñi. Mm. façon boobu ñu doon defe nag tey jii buñ mm. jékki-jékkee ne faret effacé wu il faut mu metti si ñoom. moo tax ma jàpp ne nag il faut ñu préparer wu. il faut ñu fi nekkoon ñëpp ñëpp il faut ñu préparer wu. te nag kenn bañ fee taxaw di wax naan ay euh, détenu politique ak justice à double vitesse ak nangam ak nangam ñom képp ku ñuy jàpp nañ teg kayitu leer nañ par exemple nga ne kii marché bi lañ ko jappé ki ni ak ni ak ni ak sénégalais comprendre. Mm. il faut une très bonne communication sinon boko deful chasse aux sorcières lañuy wax. Mm-hmm. manam suma jappé diw x x li la def li ak li ak li ak li mo tok teg ko ci kanam ni est-ce que xam ngeen li ak li ñu d'accord. Mm. ñëpp coow du jib mais suñ ci duggul rek problème mën na am ñenn ñi ngi chasse aux sorcières Macky Sall fu mu jaar ak euh, ministre am yeeg euh, ñi nga xam ne ñooy ay jege ñaaleem loolu dafa servir leçon euh, ñii ñi nga xam ne ñoo nekk dans l'appareil étatique wala sax nos fonctionnaire on avait vu aussi l'épisode avec Mimi Touré mm-hmm. bien vrai qu'elle essayait de se faire une peau une nouvelle peau mais da ngay gis ne cette affaire qui crée, daf ko topp ba tey à chaque fois bu justifié danaan Macky Sall moo ko moo ko ko defloo mais dangay gis ne loolu dafa nekk benn épée de Damoclès si boppam bi pour ne pas dire indi benn divergence si euh, euh, moom sax ak waaye euh, parti démocratique sénégalais Moustapha waaw mais dafa dafa dafa dafa dafa indi féewaloo seen diggante ñoom ñaar parce que fa la waa PDS jaaree ni fu Mimi toog duñ fa toog voilà man sax dama dama jàppoon ne loolu dana tax ñu ne duñ dem coalition Diomaye président parce que Mimi dafa bokkoon ci Diomaye président parce que ñoom dañoo demoon ba ñoom fépp fu ñu association wala mouvement bu ñu gis mhm. soxna Aminata Touré toog fa ñoom ñu ne ñoom duñ fa toog mhm. parce que Mimi ñoom moo bu dee waa ji ma ne nag mënu leen comprendre mhm. nooy nooy nooy nooy mën a jéggalee ki nga xamante ne moo dagg boob bi baal ki ñàdd <laughs> bu dee Mimi moo ñàdd kay Macky nag Macky écarté Karim di bu ko neexuloon Karim du écarté wu en tout cas donc on a ay c'était des affaires yo xam dañ koy wax non rek mais man j'y crois pas. voilà merci beaucoup Mustapha. on avance ñu dem euh, wax euh, si euh, beneen yéenekaay cette fois-ci ñu dem si.